téléspectateurs ravi de vous retrouver comme tous les soirs ci émission li fës internet bi j'espère que vous avez tous passé un très bon week en tout cas ñun moom ça va et puis merci beaucoup à toute l'équipe de la rédaction hashtag bi dièse RFI la si vous venez de nous rejoindre yéen a ngi ci émission bi leen di jox information yi tukkee ci réseaux sociaux en temps et en heure réelle alors aujourd'hui on va par désherbage bi nga xamante ni moom moo amoon fële ca cimetière bu Pikine Euh, ya ñu fa retrouver doy waar tey xëy inondé la toile ñëpp di ci joxe seen xalaat nañu seetaan vidéo bi bu ñu dellusee ñu liiral leen commentaire yi. xoolee liggéey yaa ngi nii liggéey ñu ngi nii voilà yàlla leen liggéey yaa ngi ay liggéey kase la ay liggéey kase liggéey jeexagul mi ngi nii gars yi xoolal bi xoolal li kenn xamul lan la lii. soo tët tët tët. bon. yaa ngi noonu di dindi liggéey. liggéey yaa ngi nii liggéey. gars yi indi leen waay. ci yooyu la cimetière ay liggéey. yoo xam ne def nañ ko ci tomb euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa tëdd euh, internet yi tey daanaka lii bokk na ci li leen gën a naqari et puis tout le monde en parle ku ci mel ni asfiyahi point org moom wax na ni désherbage cimetière de Pikine ce dimanche 11 décembre 2022 daal di wane euh, image yi nga xamante ni ñoom ñoo ci toftalu tooroodo bu Serigne Saliou wax ni Sénégal ku demul rekk dañ la liggéey sëy yaa ngi tas jëkkër yaa ngi abandonné seeni jabar gis ku sëy ba sonn ay doomam duñ tekki gis ku doon liggéey am teraanga xëy tàggali ko ak sagoom gis polygame bu jeng ci benn jabar bi tourner la dos à son autre euh, gis itam ay doom yoo xamante ni dañuy xëy ne seen papa bëgguleen gis ku xëy bàyyante ak ku mu bëggoon lii yëpp c'est parce que mystique rek mystique rek moom pays va ba su ci taxawaay bi dina yàgg dina metti mu nekk lu doy waar koo xam ne itam nammeel jaamu Serigne Saliou lay wuyoo moom wax na ni nga suul slip ak bécco si bàmmeelu koo xam ne da doon dund comme yow wala yow da nga yaakaar ni doo mës a dee c'est beaucoup de commentaires yoo xamante ni vraiment aujourd'hui ñu ngi koy lire ci kaw euh, toile bi et puis on déplore ça on espère que nit yi dinañ delloo si seen xel bu baax a baax a baax ci yu bari yoo xamante ni dañ koy def parce que dans la vie rien n'est éternel parlons de ce qui s'est passé à Mbour ce samedi euh, benn Guinéen moo doon def benn fusillade ci benn tentative de vol à main armée daal di fay faat ñaari bakkanu euh, doomu aadama kenn ki jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti alarmé ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk foofale ca Mbour vidéo yi viral gis nañu euh, c'était comme un film taw taw taw pan pan pan et puis les gens ne comprennent pas les internautes aussi en ont fait ñoom seen propre analyse euh, ngoone Saliou Diop mu ngi wax ne l'arme automatique utilisée par le Guinéen qui a tué deux personnes et blessé quatre autres a été achetée dans la ville de Touba deux morts lors d'un vol armé au marché de Mbour ce qui s'est réellement passé à Mbour témoins oculaires yi ñoom itam joxe nañu seen xalaat les victimes de la fusillade itam gis nañu seen vidéo yeek seen image yi daal dinañu koy rendre public et mu nekk lu métti lu doy waar loo xamante ni daanaka week-end bi yëpp euh, képp kuy sénégalais tu ne te sens plus en sécurité ñenn ñi dem bay wax ni sax dugub beeg génn bi dafa bëri fii ci Sénégal tout le monde wala toute la sous-région dañuy am possibilité wu euh, traverser yi nga xamante ni mooy seeni frontière et interpellé nañ ci le président de la République du Sénégal euh, Macky sàll yemul foofu rek ndax njiital gëm sa bopp président Bougane Gueye Dany moom def na. visite ca euh, hôpital Thierno Mansour Baro bu Mbour au chevet des blessés de la tuerie du marché central L'insécurité dicte sa loi dans notre cher pays, un problème de société qui trouve sa solution dans le programme de Gëm sa bopp Gëm sa bopp le meilleur programme pour changer le Sénégal loolee la ñu mën a lire ci ay page yu ci mel ni eh, président Bougane le sauveur ak yeneen i page yoo xamante ni ñu ngi partagé loolee nga xam ni moom moo di visitu euh, président Bougane Gueye Dany ci ñi nga xamante ni ñoo jëlee ay gaañu gaañu ci boobu la fusillade amoon ca Mbour leneen loo xam ne itam internet yi mer nañ ci ba foto mooy pendant ce temps Euh, c'est très gravissime le président de la République du Sénégal Macky Sall tweet pour féliciter les lions d'Atlas et zappe le deuil de Mbour mu nekk lu doy waar ndax ci boobu le tweet moom Macky mi ngi wax ni historique et fantastique les lions de l'Atlas sont qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde bravo euh, le euh, Maroc bi le tweet nag tax na Sénégalais yi mer ba futtu parce que pendant ce temps euh, Mbour ma nga amoon ñaari nit yu ñàkk seen bakkan nga jéggaani leen dem di feeste ñeneen sa euh, semble très paradoxal ci boppu Sénégalais moo tax ñu bëri tey xëy def ci taxaw seetlu on parle d'autre chose mu di l'élimination ba tey euh, éliminer nañu Portugal Maroc moo éliminé Portugal Portu Maroc nekk euh, pratiquement pays premier pays africain bi nga xamante ni dem na ci euh, demi-finalu li nga xamante ni moom moo di euh, mondial daanaka. seen àndandoo yëpp à l'unanimité moom la ñu xëyee euh, waxtaanee ko et puis euh, ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, marocains yi. et puis voilà gis nañu comment les gens ont été très contents ci loolu Nimzini Maga nee na historique Maroc élimine le Portugal grâce à un but d'En Nesri et devient le pays premier. africain à qualifier euh, en demi-finale euh, loolu nag nekk pratiquement loo xamante ni inondé na la toile bu baax a baax a baax leneen loo xamante ni itam euh, site internet le di Sénégal moom moo ñu ko daal di xamal mu di Amadou Ba ba mu taxawee ci assemblée nationale di wax lu am solo ca ay journaliste jóg di yuuxu à que ñu libéré ki nga xamante ni moom moo di Papa Alé Niang nañu seetaan vidéo bi bu ñu dellu see ñu leeral leen ñaar ñi nga xamante ni. tegaat nañu leen loxo ñu dee ay taskatu xibaar. condamnation yi du ñàkk nañu ko gravé waat dans les annales politiques de ce pays après les députés de l'opposition les journalistes ont scandé la libération de Pape Alé Niang ca boobule hémicycle alors que euh, Amadou Ba commencé woon na def benn déclaration de politique générale loolee nag waa Sénégal ñoom ñoo ñu ko daal di xamal wax ni ñaari journalistes yi ñu tegal loxo kenn ki Nando Cabral Gomis lay wuyoo bu Sud Quotidien ki ci des di Fallou bu journal L'Observateur et puis on espère que ñoom itam dinañ gaaw bàyyi leen ba ñu mën a ñibbi ci seen njaboot li moo gënoon fës daanaka ci infonet yi ñu jubal directement xool li nga xamante moom moo di euh, fake news bu bës bi alors fake news bu bës bi dañuy taxaw ci Cristiano Ronaldo mi nga xamante ni depuis euh, début mondial bi ñu ngi koy waxal ay fake news ba daal dee def sax ab liste ku ci mel ne Ronaldo football def na liste fake yi nga xamante ni moom lañ ko waxal yëpp pendant euh, les mondial Cristiano est en conflit avec Bruno et Cancelo. Cristiano va signer à El Nas Cristiano est fâché sur le banc. Cristiano a quitté le terrain sans saluer les supporters mais aussi euh, euh, Cristiano a menacé de quitter le groupe loolee nag ci benn point de presse boo xamante doon nañ ko amal démb seen entraîneur bi daal di euh, weddi loolu yëpp nga xamante moom la ko waxal kon mën nañu jàpp ne toutes les informations qui circulent sur la toile et qui concernent Cristiano Ronaldo ay fake news ndax ñoom wax nañu yëf nu mu demee dëggantaan du ñàkk ma jox leen baykat yi a jàdd ci suñu ak jàmm ci la gën a fës ci yéen kay bés bi jëm ci wàllu internet bi whatsapp instagram telegram facebook tiktok tiwit lu doy waar moo xew ca mbuux benn samba booy daal moo fa sox bu sale daal di ko jëmale ci askan wi rey fa lu toll ci ñetti doomi aadama doon lu méttee métti loo xam ne ah, waa mbuur loolu daal lanu tiktok daal di xamal waa mbuur ne ñoom dañoo jommi ndax sénégal daa mel ni rido may ga et eh, ku jot rek daal di fi tabbi te war nañ ko xoolaat bu baax a baax kilifa ci interpellé gannaaw bi ko nekkee ci kaso bi moom Pape Alé plénière moo amoon foofee ca assemblée nationale tiktok di ñu xamal ni journaliste yi fa teewoon nag dañoo yëkkati ay t-shirt yoo xam ni nataalu Pape Alé Niang moo ci nekk di yuuxu naan libéré Pape Alé Niang journaliste yi nag ñoom ñoo daal di ca biir assemblée nationale ci page Facebook bu Pape Aliou Dieng ci boobu jamono nag Pape Alé Niang daa feebar feebar lool la def ba sax fii ñu waxee génn ma nga ci ab clinique ñu koy saytu waaye nag médecin nee na mbir mi doy na waar tii nag jéggi na day Serigne Saliou Gueye eh, yoo xam ni bu génnee dina yéeme dina doy waax Gabriel Kane na ci Facebook Dakar 92 point com ni oto bi may dawal 27 millions lay jar te nag ki may bëgganteel moo ma ko jëndal ñaf jaral nga ko diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang ubbil TikTok seen janoo ba tàngoon na jër jër jër nag ku nekk yëkkati na kaddu jëmale ko ci moromam Boy Niang ni ko combat bi du combat wax combat bi combat jëf la tey nag man ku ne xam ne maa ngi woon sama ruq ak sama staff di liggéey fi mu nekk nii wax ji jaratu ko nanu jëf rek Balla Gaye daal di koy feelu daal di wàcc sëriñam di sëriñ Basiru Baara ne ko na nga dëggal sa bopp li nga wax na nga fexe ba na nga ko def boo ko defee dinaa la daan ndax bawul dara na fi jéey léegi fi si beaucoup à Mbaye Karim on va se retrouver demain incha allah namoon naa la samedi ak dimanche Mbaye xam nga dama lay namm tuuti tuuti rek tuuti mais vraiment dama la koy wax daal parce que suma la ko xul euh, damay bañ yow tam nga namm ma doo ma ko wax bu ñu namantee nañ ko waxante suba incha allah même heure même fréquence euh, di ñu joxaat yeneen i revue de presse digitale mais euh, balaa ñuy ñëw ci blague du jours wax naa leen ko tantôt defar di koy mënul ñàkk ba tey ak imam Moustapha mu gën ñu conscientiser.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 nam daan amee daaw jeeg nam daan amee démb nam daan amee ay at ci ginnaaw ci suñu maam yi nam daan jàppalante di dimbalante kenn ku ci nekk fas jom xam ne yow da nga fexe ba sayyidna nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon muy ñaar yi ngeen mëtandiku ko ne woon na fexel ba nit ñi doomi aadama yi nañu mucc ci sa ayu làmmeñ nañu mucc ci sa ayu loxo kon nag jullit piir piir mooy ki nga xamante ne danañ mucc ci làmmeñam danañ mucc ci lii di loxoom su fekkee ne loolu am na danga mën a yéene nit ñi jàmm danga mën a yéene nit ñi lu baax ndax fekk na ne lépp luy jikko ju ñaaw bàyyi nga ko lépp luy jikko ju uh, uh, ju rafetul bàyyi nga ko yaa ngi léegi ci njub ci mbaax ci teral doomi aadama ci fonk ko ci yéene ko li nga bëggal sa bopp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. beaucoup imam mi nga xamante ne à chaque fois daf ñuy accompagner moom itam ci bilee émission c'est interactif wooy leen di ñu jox seen ay suggestions propositions réactions si suñu plateforme digitale yëpp Facebook Sen TV l'officiel wala YouTube Sen TV l'officiel bu ko defee ñu mën a partager directement lépp loo xamante ni ci émission bi lay xewee blague du jour du mën a ñàkk ndax mooy pàcc bi mujj ci bilee émission nañu ànd dem xeetaan bu ko defee ñu xaarandoo li nga xamante ni moom moo di série ak seen show wallaay yaa am fulla dawal de dawal yokkal yokkal yokkal yokkal yokkal yokkal yokkal waaw kay baay góor dëgg ni lay mel daw ba rëcc si bokk dawal dawal dawal dawal ba rëcc waaw kay baay Aïcha li moo gënoon fës ci internet bi ci bésu tey lundi bi ñu tolloon daanaka ci 12 euh, décembre 2022 suba rek incha allah la ñu fiy dajewaat ci yeneen i xibaar yi gën a fës ba tey ci web bi mais d'ici là restez scotchés pour la bonne suite de nos programmes di ngeen am tantôt comme ni ma ko waxee les séries de la maison bu jàllee di ngeen mën a am seen émission seen show Khady Colonel ak ñi ci àndal ñëpp merci beaucoup et puis passez une très belle